ñaar fukk ak juróom njëlbeen ga yi ñu déglu asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am na nu mbégte ci la nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ba tey nu ngi gëstu ci tawreet ni ngeen ko xame tawreet mooy téere bi jëkk ci mbindi yonent yi te am juróomi xaaj xaaj bu jëkk bi ñu koy woowee njaalbeen ga ci émission bi weesu jeexaloon nanu sunuy njàng ci téereb njaalbeen ga tey jii nag danu fas yéene dugg ci ñaareelu xaaju tawret bi ñuy wax gàddaay ga téréb gàddaay ga dafa ëmb nettali bu neex te doy waar ci ni yàlla gorele bànni israel ci seen buumuk njaam ca réewum misra wante bala nuy dugg ci téréb gàddaay ga nanu jëkk nafar li nu jàngoon ci téere bi jëkk ci mbind mu sell ci dëgg-dëgg war nanu xam bu baax téereb njalben ga ndaxte mooy fondement bi yàlla teg ngir nu mën a dégg te gëm lépp lu ñu bind ci yeneen téere yonent yi ci topp ndax yéen a ngi fàttaliku aay bi jëkk ci téere njalben ga nanu ko jàngaat dafa ne ca njalben ga yàlla sàkk na asamaan ak suuf kàddu gu am maanaa la ca njalbeen ga yàlla ba dara amagul kenn rekk a doon dund kooku moo di yàlla noonu gisoon nanu yàlla ci jamono ju jëkk ja laata mu sàkk nit ñi ni mu binde woon alfuni alfuni junni junni malaaka ngir ñu jaamu ko te màggal ko ci biir malaaka yi amoon na ci benn bu ëppoon xel te gën a rafet yeneen malaaka yépp moo doon lucifer mi nekkoon kilifak malaaka yi wante mbind mi daf nuy nettali ne dafa amoon bés lucifer bàkku xeeb yàlla ci biir xolam lucifer ak yeneen malaaka yu bari tàmbale rabat pexe ngir noot yàlla wante kenn mënula noot yàlla te yàlla mënula dékku kuy bañ kilifteefam ci kaw loolu yàlla dàq lucifer ak malaakaam yu bon ya te mu soppi turu lucifer mu nekk seytaane li tekki bañaaleb yàlla te gannaaw ba yàlla dàqee seytaane ak ay malaakam mu sàkkal leen safara sudul fey te mbind mi day wax ne keroog bés penc ba yàlla aji jub dina sànni seytaane ca safara soosu ak képp ku koy topp gannaaw loolu nag jàngoon na nanu ni yàlla aji sax ji sàkke asamaan suuf géej ak li ñu ëmb lépp yàlla bindoon na lépp ngir nit ñi muy fas yéene sàkk nit moo doon bindeef mi gën a am solo ci lépp li yàlla bind ndaxte sàkk nañu ko ci melokaanu yàlla yàlla dafa bëggoon a am diggante bu xóot te neex ak nit loola tax mu sol ci ruuwu nit xel ba mu mën a xam yàlla may ko xol ba mu mën a bëgg yàlla te dénk ko coobare ba mu mën a tànnal boppam déggal yàlla walla ñàkk koo déggal naka noonu gisoon nanu ni yàlla tege woon ab nattu ci kanamu nit ñi mu sàkk ba wone fu seeni xol tollu loola taxoon bés ba yàlla sàkkee aadama mu artu ko ne mën nga lekk ci bépp garabu tool bi waaye bu lekk ci garabu xam lu baax ak lu bon ndaxte bés boo ci lekkee keroog faaw nga dee maanaam faaw nga tàqali ko ak man ba faaw wante gisoon nanu ni sunuy maam aadama ak awa tànne woon déggal seytaane te topp ko ba lekk ci garab gi leen yàlla aaye woon ci kaw loolu nag kàddug yàlla nee na bàkkaar ci kenn nit la jaar dugg ci àddina indaale fi dee te dee daldi law ci nit ñépp ci li wóor musiba du yem ci bopp boroom bàkkaaru aadama tax nun ñépp nekk ay bàkkaarkat te faw nu dee jaar ci àtteb yàlla nun ñépp noonu jàngoon nanu ni yàlla dàqe aadama ak awa toolu ajana ndax seen bàkkaar wante laata leen di dàq yàlla dafa xamle woon ni mu fasoon yéenewu yónnee ci àddina ab ramukat ngir musal doomi aadama ci dooley seytaane ak peyug bàkkaar yàlla ci yéeneem ju rafet amoon na pexe ngir jot bàkkaarkat yi pexem moo doon wàcce kenn ku bokkul ci bàkkaaru aadama ngir mu tuur deretem feyal doomu aadama seen boru bàkkaar ci loolu la yàlla doon wone bu leer ni mu mën a baale nit ñi seeni bàkkaar te ba tey dëkk ci njubteem ci dëgg-dëgg li yàlla dige woon ci lu jëm ci ramukat bi naroon a ñëw dig gu neex la woon noonu gisoon nanu ni yàlla firndeele dig gu neex googu ci li mu rende ay mala defaral ci aadama ak awa yërey der ngir muur seen gàcce ci noonu nag yàlla doon na jàngal aadama ak awa ne peyug bàkkaar mooy dee te su deret tuuruwul mbaalug bàkkaar du am gannaaw loolu jàngoon nanu ci mbirum ñaari doomi aadama yu jëkk ya maanaam kayin ak abel gisoon nanu ni abel jébbale yàlla mbote mu amul sikk rendi ko ngir misaal ramukat bi naroon a gane ci àddina deewal bàkkarkat yi waaye kayin moom dafa doon fexe jege yàlla ci pexe boppam indil ko li mu beyoon noonu mbind mi ne yàlla aji sax ji nangul abel waaye nangulul kayin lu tax yàlla nangulul kayin saraxam ndaxte yoonu yàlla waxul woon peyug bàkkaar mooy jëf yu rafet wante dafa tëraloon ne peyug bàkkaar mooy dee te su deret turuwul mbaalug bàkkaar du am yàlla layoo woon na ak kayin ngir mu réccu te nangu yoonu njub bi mu tëraloon wante kayin deful lu dul mer rekk ba rey rakkam abel naka noonu gisoon nanu ni lu ëpp ci doomi aadama toppe tànki kayin ba nga xam ne bi nu agsee ci jamonoy nooyin mbind mi nee na yàlla gis ne coxoru nit rëy na ci àddina te fu ñu mën a toll lu bon rekk lañu daan xinte ci seen xol ndax xolu nit bu bon yàlla dogaloon na indi ci kaw suuf mbëndum ndox ngir far bàkkaarkat yi ca jamono ju jëng jooja nooyin rekk gëmoon yàlla ba tax yàlla wax ko mu defar gaal gu rëy gi naroon a nekk rawukaay ci képp ku ci dugg yàlla mu muñaloon na bàkkaarkat yi diir bu yàgg dajeg nooyin doon yett gaal ga wante kenn réccuwul ba dugg ca gaal ga ba mu des nooyin ak njabootam ak bàyyima yu bare nooyin amoon na ñetti doom sem kam ak yafet amoon na kenn ku soqikoo ci sem ku tuddoon ibrahima jàngoon nanu ni yàlla woowe ibrahima ngir mu génn kër baayam dem ci réewum kanam yàlla fasoon na yéene def ci moom xeet wu bees wu yonenti yàlla yi ak ramukatu àddina si naroon a soxi looloo tax yàlla waxoon ibrahima naan dinga nekk buntu barke te xeeti àddina yépp dinañu barkeelu ci yow noonu ibrahima jur isaaxa ci màggatam ci kaw diggu yàlla isaaxa nag jur yanqoba te yanqoba mi yàlla tudde israel jur fukki doom yu góor ak ñaar noonu fukki doomi yanqoba ak ñaar ñooñu sos xeet wu bees wi yàlla digoon ibrahima muy xeetu israel ci ñetti émission yi weesu nag gëstu nañu ci nettali bu doy waar ci mbirum doomi yanqoba rawatina ki tudd yusufa mi doon fukkeelu doom ji ak benn magi yuusufa bañoon nañu ko waaye yàlla barkeel na ko ba tax ca mujj ga mu nekk kilifak réew misra mépp bi loolu amee xiif tàbbi ci biir misra ak réewum kanaan mépp ba tos ja metti lool yankoba ak doomam nag amatuñu woon lu ñu lekk bi yankoba déggee ne misra am na dugub mu yebal ca ay doomam noonu gisoon nanu ni yuusufa xàmmee ko ay magam baal leen woo baayam ak mbokkam yépp ñu toxu sanc ci misira loolu mooy li tax ci mujjug téereb njalbeen ga nu gis ne bànn israel dëkkatuñu woon ci réewum kanaan mi yàlla diggoon ibrahima waaye ñu nga nekk ca misira wante loolu lépp xewoon na ngir amal li yàlla waxoon ibrahima bu yàgg ba mu koy wax naan déglul bu baax li ma lay wax saw askan dina nekk ay doxandeem ci réew mi ñu moomul ñu di leen defi jaam lakkal leen diirub ñeenti téeméeri at waaye réew moomu leen di defi jaam dina leen àtte bu loolu amee nag saw askan dina ca génn ak alal ju bare yàlla moom ci boppam doon na joo loxoom ci lépp lu xewoon ci anami bànni israel lu tax yàlla bàyyi sëti ibrahima ñu sanc ci misira te mu diggan leen réew kanam ndaxte yàlla fasoon na yéene wone ndamam ak kàttanam jaarale ko ci li naroon na dal bànni israel ci réew misra yàlla fasoon na yéene goreel bànni israel ci dooleem ju yéeme ji ngir ñépp mën a xam ne moom mooy buuru buur yi aji kàttan ci léegi nag mbokki déglukat yi ci minit yu néew yi nu dese nanu ci fexe jàngandoo saar bu jëkk ci téere bi ñuy wax gàddaay ga mbind mi neena ñi ñooy doomi israel yi àndoon ak yanqoba seen baay dem misira te kenn ku nekk yóbbaale waa këram ruben simeyon lewi yuda isakar sabulan bensamen daan neftali gàdd ak aseer ci noonu ñi soq ko ci yanqoba ñépp juróom ñaar fukki nit lañu fekk doomam ju góor ju ñuy wax yusufa nekk misira gannaaw loolu yuusufa ak doomi baayam ak maasam ñépp dee waaye bànni israel di askan wu law te giir di sakkan te yokku te bare ne gàññ ba fees réew ma bi loolu wéyee buur falu ci misira te soppee am ndax xamul ku yuusufa noonu mu woo réew ma ne leen bànni israel ñoo ngi nuy bëgg mëdd ci bare nanu def pexe ngir ñu bañatee yokku lu ko moy bu xare amee dinañu far ak sunuy noon xeex ak nun génn réew mi moo tax waa misra sàkk ay njiit liggéeykat ngir fitnaal leen ci diisal seen yenn di leen liggéeyloo noonu la bànni israel tabaxale na dëkku dencukaayu dund yi pitom ak ramses waaye lu ñu leen gëna a fitnaal ñuy gën di yokku tey law ba waa misra mujj jàq lool noonu ñu soxore bànni israel di leen jaamloo soxore leen ci toskare ji ñu leen di teg ba seen àddina weex leen xat ñuy muul di tabax di bey ak mbey yu bare noonu buuru misra woo rewlikati ebraan yi maanaam banne israel kenn kaa ngi tudd sifra ki ci des puwa mu ne leen bu ngeen dee rewli jigéeni ebraan yi nangeen seet lu doom yi ñuy jur su dee góor rey leen ko su dee jigéen bàyyi leen ko mu dund waaye rewlekat yi ragal yàlla ba defuñu li leen buur ba sant ñu bàyyi liir yu góor yi ñuy dund buur ba daldi woowaat rewlekat ya ne leen lu tax ngeen bàyyi liir yu góor yi ñuy dund rewlekat ya ne ko jigéeni ebraan yi niroowuñu ak jigéeni misra yi dañoo am kàttan ba laata rewlekat bi di agsi fekk ñu mucc bànni israel nag sekki te gën a yokk te yàlla defal rewlekat yi taw féex ba jox leen njaboot ndax seen ragal yàlla noonu na daldi jox ndigal waa réew mi ne bépp doomu ebraan bu juddu tey góor sànni leen ko ca dex ka te bàyyi jigéen ñi ñu dund fii la saar wi jëkk ci téereb gàddaay ga yem ci émission bi di ñëw ndegam neex na yàlla dina nu dugg bu baax ci nettale bu neex bii ba gis ni yàlla woowe kenn nit te waajal ko ngir mu goreel bànni israel ci loxoy na ndax xam nga turu nit kooku waaw mooy musa yonent yàlla musa su fekkee ne am ngeen laaj ci li nu jàng tey bind leen ñu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel ba beneen yoon nu ngi leen di tàggoo ak kàddu yi jóge ci mbind mu sell mi lépp lu ñu waxoon ci mbind mi lu jiitu tey dañu ko tëraloon ngir nu sàkku ci xam-xam xam-xam bu nu may fit ak muñ ak di feddali sunu yaakaar